Ya. acquis leurs Sa justice condamna le droit. Son imamat est le plus grand. Son sacrifice est le plus grand, celui dont parle Saint-Coran. Hussein cria pour la création. Son combat est une libération. Son appel est une bénédiction. Et ceux qui répondent à l'imam assurent le salut de leurs âmes. Imam Hussein. fidèles. Ravivons la flamme de la vérité chez ceux qui ont promis fidélité au prophète et à sa sainte lignée. Imam Hussein, Imam Hussein, Imam Hussein, Imam Hussein, Imam Hussein, Imam Hussein. fidélité au prince des martyrs et répondons toujours au cri de Ashura en défendant Shérif Mohamed Ali Haïdara. ak njabootam ci Tamxarit bi wallahi bés boo xamee ni li dal Ousseynou Kaba le clément, Que la prière d'Allah soit sur le prophète Mohammed et sa sainte famille. Comment vous exprimer ma peine à la mort du petit-fils du prophète Le troisième des est sacrifié. Ses proches, ses partisans ne lui ont même pas creusé de tombe. Ils n'ont pas humecté ses lèvres d'eau fraîche. Ils n'ont pas écouté ses mots Mais comment aurait-il pu lui creuser une tombe Lui humecter ses lèvres, écouter ses paroles puisqu'il était aussi des morts Oh, puis qui lavera le sang de Karbala, qui recouvrira en ce jour sang éternel. Oh, puis qui lavera le sang des martyrs. Tombe et emplis cette terre sacrée. Oh, puis tombe aussi fort que tu puisses, Ce sang triomphera comme une fleur sauvage. Un jour, il éclatera, il sera un message. Une voix jaillit du fond de mon corps et se lève au Je sens mes larmes, il provient du fond de mes entrailles. Comment pourrons-nous oublier ce jour assombri Comment pourrons-nous pardonner à ceux qui t'ont assassiné, Ya Hussein La mort fut pour toi une récompense et pour nous, elle fut une leçon de grandes conséquences. Ô toi, Hussein, ta mort a rendu si dérisoire la vie, l'a rendu si insignifiante, qu'une telle mort fait l'envie des grands. Ton sang est le prix du sang de la vérité. Ton sang a scellé la vérité, Ya Hussein. Tu étais le métal du messager d'Allah. Tu étais le symbole de l'amour et du bien. Ce message de justice dont tu ne doutais pas, dont tu t'évertuais à suivre le sommet au Hussein. Tu décides d'affronter les pervers pour préserver l'islam et toutes ses valeurs. keroog sa Karbala am dondoo imam Hussein boobu nañ imam wéet na ba imam taxawee naan xal min munaasirin yansuruna xal min munaasirin yansuruna labbayka ya Hussein ayna ansaarul Hussein labbayka ya Hussein ayna ansaarul Hussein labbayka ya Hussein Yazid le maudit et ses troupes criminelles pensaient assassiner la parole du Coran Aujourd'hui, ils brûlent dans les flammes éternelles, car ils ont fait beaucoup de mal à la famille du prophète. oh Abbas keroog ba Abbas gisee xale yaak jigéen ñi di jooy maar ci la jël gurdu bi dem wuti ndox ba mu demee si fleuve ba wut na ndox bi muy dëpp Abbas si la ko noonu dogaali songu ko xeex noonu dagg nañ ñaari loxoom Abbas continué di xeex ak ñoom di leen di rey di leen di rey am kenn ku ko tiire flèche si bët Abbas dindi feles bi Abbas mënatul a gis teewul mooy continuer ndax moom Xaydar la woon di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom di leen di rey di leen di rey ba ni Abbas di daanoo Abbas di woo Imam Hussein nan ko yaa Mawla yaa Aba Abdillah adrik nii Imam Hussein ñëw mu nan ko yow Imam téye ma si say loxo ndax sentiru suma sama yees mu naan ko ak a neexoon tey ma gis la waaye felis bii tax na mënutuma laa gis dama war a dellu si sama maam rasulullah imam bëgg mu dem kër ga boobu abul fatil abbas munul dem ndax mu ngi xalaat bu demee lan la war a wax sayda sukkay na ndax mosu koo dig loo xamante ni defu ko te mënu woon muñ xale yi di mar te moom du leen mën a may ndox imam Xuseen bi muy dem moom kese mu ngi xalaat lan la war a wax njaboot bi ba mu eggee Zeynab naan ko way na Abbas way ya Abbas labbayka ya Abbas labbayka ya Abbas labbayka ya naan ko way na abi Abbas way abi Abbas Ô prince des martyrs ô oh, fils de Zahra ô oh, toi de Dieu fils du lion Tu pleures, mon imam, au nom de tous les tiens. Tu pleures car l'épreuve assoif l'innocence. Ô Hussein, ils arrêteront ton corps, mais n'aura jamais ton âme, Ya Husseina. Les fous les aveugles, le monde tourne à l'envers. Ô Fatima, quels sont ces êtres ignobles qui ont osé suer le fruit de tes entrailles Ô Zainab, si Oh tu pleures si noblement. Ton âme est désirée par cette sombre bataille. Tu es Mersenne du plus pur des amours. Héros Karbala, héros d'Ashura, vous valeureux guerriers, compagnons de l'imam, fidèles des fidèles proches serviteurs d'Allah subhanahu wa vous avez fait usage de vos larmes pour Hussein. Notre devoir n'est-il que de pleurer Oui, il faut toujours pleurer pour Hussein, car pleurer un martyr, c'est contribuer à son épopée, c'est unir avec sa cause, ses mouvements et son courant. Et ses pleurs pour l'imam Hussein permet d'éduquer et de le vivifier à travers notre amour pour lui. Pour ce pourquoi Cheikh quand le ciel et la terre pleuraient l'imam. Nos cœurs seraient-ils plus durs que la pierre? Et je vous dis, toute chose pleurera sur Hussein, même les bêtes sauvages dans les déserts, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel pleurèrent sur lui. Le soleil, la lune et les étoiles, les croyants des hommes d'aider jeunes au oh, Roussel les anges l'ensemble des anges des terres et des cieux il pleura du ciel du sang des cendres le sang de nos martyrs a écrit ce poème les larmes de leurs épouses ruissellent sur nos joues et le nom de Hussein est en chacun de nous Ton sacrifice n'aura pas été vain, car Maulana Sherif Mohamed Al-Haïdar est là aujourd'hui pour sauvegarder l'islam originel. Oh mon maître Yahoussen, ta victoire d'aujourd'hui apparaît. Ton souvenir est là, plus vivant chaque jour, et ton esprit demeure parmi nous à jamais, Yahoussen. Oh Hussein, je te salue et te mon amour. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين حسين du ma sa xonk ba su penc bët bu ma sa jooy imam Hussein du ma sa xonk ba su penc bët bu ma sa jooy imam Hussein du ma sa xonk ba su penc sant nañ yàlla fii ci musdahir ndax soppay ku seen ñoo fi daje si guddi muharram dañuy dëkk di jooj di jaay imam Hussein yaakaar si aljana sante nañ ko Cherif ndax moo ñu tàggat ci bëgg Moustapha ak waa këram ci bëgg Moustapha ak waa këram sallu ala Muhammad wa ali المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين بقي di teewal nit ah xam naa ñu nekk ci yoon bi di ñëw incha allah pour Mawlana seen Cheikh Mouhamad Ali Aïda ñu ngi leen di dalal ñuy ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm incha allah ci seen kër seen kër ndax kër Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kër Yonent bi nag fu ñuy kër Yonent bi la lépp lu yàlla bind am na fa am na fa place lépp lu yàlla bind ndax yàlla da ko ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow yër la rek ku ñëw fi yow la muy wut ci jàmm ak dal ak quiétude da ko war a am fi yow boo tax Mawlana Cheikh bi ñu fii nga xam ni mi ko tuddee bu jàmmaa imaam Ali Imam Ali mooy nafistu rasulillah mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku fi ñëw kon woote bi labbay Maulana Seydou Chérif doon na wax ci fan yëpp naan képp ku dox sa tànk ñëw rek wuy si nga woote Xuseyni boobu kon yéen ñëpp daf leen di gërëm ci turu maamam Imam Xuseyni moo woote woon ni kan moo ñuy wallu kan mooy nangoo ñëw wallu si ñu ñun euh, waa kër yonent bi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi nuyu mbokk yi yépp ñi nga xam ne ñi fi ñoo fi teew tey maa ngi leen massawu coono ñëw bi ak tàngaay bi te ñëw fii jafe na yoon yi baaxul waaye li tax ngeen ñëw fii dangeen gëm suñu borom allah subhanahu wa ta'ala te da ngeen bëgg suñu yenent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi al athar premièrement leen na rek laa wax yéen yëpp jullit yi maa ngi leen laaj maa ngi leen laaj déglu leen ma bu baax bés bu ñu taxawee ñu ne dañuy rey imaam Hussein su yenent bi nekkoon foofu lan laa di wax déedéet du wax loolu dafay wax yéen comme dangeen ngeen décider rey imaam Hussein rey leen ma bàyyi ngeen bàyyi ko <laughs> loolu rek la daan wax wax bi nag fii la yem de du dugg ci wax bi dara ma ne yenent bi su nekkoon Karbala trois mille soldats taxaw ñu ne dañuy rey doomam bii al Hussein ah doomam bii al ki nga xam ne nee na xuseynu minni wa ana min xuseyn xuseyn ci man la man may xuseyn xuseyn mooy man kon ku rey xuseyn rey naa yenent bi léegi nag sama mbokk yi bu leen déglu ñi nga xam ne dañuy nax seen bopp di wax fii lii moo xewoon lii moo xewoon lii moo xewoon xew ci àddina bi ñun li ñu xewal mooy rey nañu imaam Hussein te ku rey imaam Hussein su amoon yenent bi dina ko rey gis nga Abu Sufyaan dafa xeex yenent bi ba yenent bi gaañu ki jàng taarix rek xam na loolu mais kan mooy Abu Sufyaan Abu Sufyaan mooy baayu Muawiya mais kan mooy yaayu Muawiya yaayu Muawiya mooy Hind yaayu Muawiya mooy Hind kooku moo lekkoon res Hamza kooku mooy yaay Muawiya léegi <laughs> dafa am anecdote bu ma leen bëgg a wax Muawiya amoon na benn nit bu tudd Amr ibn al-As kooku moo nekkoon moo nekkoon cerveau Muawiya moo doon réfléchir pour Muawiya moo doon def tactique guerre yi pour Muawiya pour xeex imaamu Ali léegi mu ne Muawiya yow soo gañee guerre bi lan nga may jox parce que soo ko waxul lu gaaw rek ma dem ci Ali mu ne mois Muawiya mu ne ko suñu gañee Seyd imaamu Ali rek man dinaa la def gouverneur Égypte mu ne kon léegi xaaral ma wax la li nga war a def ñun ñëpp suñu armee bi nañu jël alquran ñu teg suñu bopp suñu ko defee rek imaamu Ali du ñu laal <laughs> gis nga xalaat bu mu indi waaye loolu bu mu ñu amee lu ñu soxla ba pare dañu ko nommé gouverneur Égypte waaye Muawiya am na li ko rëcc woon xamul woon trésor public bu nekkoon Égypte baytul maali bi alal bi amul woon Dimishka Sham Syrie léegi bu mu xamee loolu léegi jal na nguur gi moo nekk xalifa jullit yi mu bind lettre Amr ibn al mu ne ko hee yow alal bi bari na danga koy sedd ci digg bi nga ne ma benn eh, benn parti bi <laughs> léegi nag Amr ibn al-As mu ne loolu nga may fay <laughs> mu bind ko lettre mais dama koy wax ci arab dafa Muawiya Amr ibn al-As dafa bind mu ne ko xalaatul xalaafata min xaydarin ka xul inni aali min al arjuli ko yàq naa moo ne xilaafa gi dama ko summi ci xaydara ma li nga xam ne moo ko moom di Ali ibn Abi Talib ni ngay summee sa dàll noonu laa noonu laa roccee xalifa gi ci moom jox la muawiyatul fadla laa tansali wa am manhajil xaqi laa taadili goreel bul fàtte ni yow boo nekkee nguur gi man maa la jox stratégie tax nga nekk nguur teeg maa bañ a wor نسيت محاولة محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي دومة الجندل مكان في سوريا دغا فاتلي nga xam ni waxtaan bañ waxtaanoon ci Alshari te man tey jii maa ngi ci place bi nga xam ne fa laa toog de هنا خلقت الخلافة من حيدر كخلق النعال من الأرجل wa albastuha fika yabna li'aam ka lubsil xawaatimi min al almuni min fil almuni mu ko yow man maa jël xilaafa gi summi ko rocc ko ci Ali ibn Abi Talib bi ko moom ni ngay summee sa dàll nga xam dafa yomb lool et sans aucune difficulté ma solal la ko yow mu ne wa lawlaa yakunta ka mithli nisaa taxaaful xuruja min al manzili bu du woon <laughs> boobu li mu tekk mooy ñoom amuñu woon respect ci jigéen. ah jërëjëf li tax mu ni kon da mel ni jigéen dañoo ñàkkoon respect ci jigéen moo tax ma ne ñun du yéen boobu bi nga xam ne dañu ñàkkoon respect jigéen. temps boobu waa ahlul bayt ñu ngi ñuy wax ne foo foo xam ne yàlla woo na góor yàlla woor na foofu jigéen. yàlla nee na. sup as jigéen amul supériorité supériorité entre la femme et l'homme non il la complémentarité la femme et la moitié jumelle de l'homme kon ñun c'est ça notre croyance c'est ça notre aqida suñu aqida du aqida Muawiya li ñu ne suñu li ñu gëm ñun ci jigéen nekkul ni fii tubéy ji maa koy takk déedéet du loolu ñun li ñu gëm te am na jàngal ko mooy góor ak jigéen ay seex lañu jigéen mooy seex bi mottali góor dañuy mottalante rek loolu lañ gëm noonu la ñuy jigéen noonu lañ koy jàppe itam nag mu ne ko nasarnaaka min jahlinaa yabna hindin ala naba'il azamil afdali mun ko yow yow doomu hind ji mu koy fàtte ndeyam xam nga ku ñu ne doomu diw rek ñu ngi lay fàttali ni sa ndey mel mu ko yow doomu hind ji ñëpp xam nañ sa ndey ñun ñoo la jàppale yow yow ku saay-saay ku bon ku tekkiwul dara gi ci ki nga xam ni nag kooku na bag la azim yàlla tudde nag kooku mooy borom dëgg nag da nga fàtte mu ne wa xaytu rafanaaka fawqa ruus nazalna ila asfalil asfali allahu akbar nekk suñu kilifa boobu la ñu wàcce suñu bopp ba nekk ay mbaam yu torox wa inna wa ma kaana min fi'lina la fi naari fi daraki al asfali wax la nag bi ñu yëkkatee def la buur lañ toroxal suñu bopp waaye nag loolu yamu yëkkati gi ñu yëkkati teg la buur nangu li <laughs> Ali ibn Abi moom foofa lañ yóbbu suñ bopp ci kaas bi a suufe ci safara ñun xam nañ fa la ñu dëkk man ak yow foofu lañ wa kam qad samina min al mustafa wasaayan muxassasatan fi ali shuf itirafatuhum eh, yow mu awiya man ngay defee yow ñaata yoon maag yow lañ toog yonent bi di ñu wax ay ndénkaan yoo xam ne yëpp imaam Ali moo lii nga yor kana xamu ne Ali moo man ma nangu ko ci moom jox ko nga ne doo ma sédd sama wàll la <laughs> wa fi yawmi xummin raqa min baran yuballigu warrakbu lam yarxali wa kam qad samina min almustafa wasaayan muxassasatan fi ali wa fi yowmi xummin raqa min baran yuballigu warrakbu lam yarxali waaw yow da nga fàtte bés bu nekk yonent bi wax nañ ci kii ci almi bisu xumba keroog xañuru xum du maa ngi ba ña nga foon ak ña fa nekkoon ñëpp ñëpp keroog ba yam ci waxee ñëpp a nga foon kenn bougé wul kenn bronché wul itam ñëpp a ko nangu woon da nga fàtte loolu. kii leçon politique la. gis ngeen l'histoire l'histoire c'est toujours la même chose ça se répète mu ne wa fi yawmi xummin raqa min baran yuballigu wa rakbu lam yarxali fa baxbaxa cheikhuka lamma raa fa baxbaxa cheikhuka lamma raa ura abda haydara lam tuxlali mu ne ko yow bisu xom bisul xadiru xom du dañoo def benn tànt boo xam min bari yon yonent dong nga ciy yéeg ak Aliou ñu def yow yaa ngi ko woon ko waaye sa kilifa gu mag bi nga xam ne moo la fal gouverneur fii ci Saam ba tax nga toog fi am doole ji ngay am ittee addition aw Umar ibn Xattaab ma nga fa woon wa inna aliyan gadan xasmuna wa yatazu billahi wal mursali ah, tey nag Aliou est notre naka xasmuna xasmuna suñu suñu opposant la ah suñu suñu suñu suñu ennemi la. devant Dieu devant Dieu nag mais nag nañ xam ni yàlla ak yonent ñoom moom la moom la faral de. mu ne. wa inna aliyan gadan xasmuna wa yatazu billahi war nursali fa udruna yowma kashful ghita nee na bu ëllëgee dinañ porter plainte devant Dieu yàlla ak yonent ñoo koy plaider pour ñëwaat kon ci langage avocat bi. wa inna aliyan gadan xasmuna wa yatazu billahi walmursali fama udruna yowma kashfu lgita laka alwaylu minhu gadan thumma li laka alwaylu minhu gadan thumma li eh, bu ñu Alioune porté plainte devant le prophète et devant Dieu yàlla tranché et eh, yow maag yow naka lañu def bis bu yàlla dindee eh, voile yëpp ba kon kenn ku nekk jàkkaarloog li nga defoon lakal waylu yow sawara boobu ñu tuddee wëy mooy toroxte ak dolli ku joteeg loo yaakaar mu tas man ak yow foofu lañ jëm fa in taku baynakuma nisbatun fa ayna alxusaama min alminjali wa ayna alxasa min nujumi sama wa ayna muawiyatu min ali yow léegi ah, bu ñuul bi mën nañ ko comparer ak wurus nga bëgg a comparer sa bopp ak ali est-ce que biddiw bi ci asamaan si mën nañ ko comparer ak yàq bu yàq bi nekk ci kaw suuf ban moo ci gën nga bëgg sa bopp ak Alioune xam nga doo Alioune man mii du ma Alioune Alioune du kenn ci man maak yow mii goreer lu ko may ma dénoncé avant élection yii fi amoon eh, waxoon naa ak yéen ma ñaan acteur politique yëpp Sénégal nañu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko nañu xam ne mën nga tabax immeuble nga détruire ko yàq ko defaraat ko waaye ku détruire dund bakkan ku détruire bakkan doomu adama mën ko delloo kon ku dëkk ci ñun sénégalais yi ñu fexe ku nekk musiba ba bañ a duggee ci moom ci biir Sénégal te loolu lay ñaanaat encore mbokk yi ci fan mi salmini on musidal fuladu ko addi fof miɗo yetta on no feewi miɗo weltani on sabu kala gila puɗɗimi ɗe ligge mi meeɗa noddude si wona taw fuladu fof ɗi ari darodiye am ngandon mi yejjitani ɗum imam huseyne hewɓe moɗon ɗi wawi taw ganda hombo woni huseyne kono imam housein nene mum ko fatima zahra on ko wonno ɓinguel deyel bajjel nelaɗo e ko nguel tan bo mbalano ɓiɓɓe worɓe mburɓe seydina aliou ko ɓiɗɗo baba makko baba seydina aliou e baba nelaɗo o gonno baba goto nene goto joni o housein nelaɗo wiyanno toujours ko min woni housein ko houseini woni min nelaɗo ko tanira guel nelaɗo wari guel hombo wari husein abou soufiane haɓi e nelaɗo ha nelaɗo maayi ɓiɗɗo makko o e seydina aliou ha wari seydina aliou abbi imam hasanul mujtaba ɗum woni abou soufiane ɓiɗɗo makko o yasid laami duuɓi tati mbo laami hakama halata sanawat fakat assana al ula abah al hitaande ɗimmere nde mbo wari o ngel ɓinguel nelaɗo on noon si henno nelaɗo han ko waranno hitaande tataɓere nde mata yasid wa jaychuhu yadribu l kaaba bilmin janik yasid maayi tawi larme makko o ɗini nucca kaaba o ɗi duuɓi tati mbo laami hitaande wotere nde mbo waɗi ko mbo waɗi madina ko hitaande ɗimmere nde mbo waɗi husein hitaande tataɓere nde mbo nucci kaaba o jooni noon ko ko yazid ko o wari imam husein karbala joni yazid on e hoore muɗum o yiɗi fewjude peeje ɗen peeje badian haalatno ɗo haala muɗum hono ɓe cuuɗirta ngal mbargal haa ɓe mbatta asura wona jour fête walla joomen asura mbiya wonde ɗo ronin koora walla ko nanndi heen nelaaɗo wiyo onon musidɓe fulaa du nelaaɗo wiyo si goɗɗo heɓii mette si goɗɗo heɓii yurmeende on horta si goɗɗo heɓii mette e on horta ko noon nelaaɗo wii donc mbiɗo hoora o wattu wo o no ñalooma wo ɗayni hoore mum ce c'est le jour de Ashura. Depuis ce matin, je reçois des messages. On me souhaite la bonne année. Mais bonne année, c'est le premier jour de l'an, on le fait? C'est pas le dixième jour? C'est pas le dixième jour. Ce jour-là, ils vont raconter plein de choses. Ils vont dire c'est ça ou c'est ça qui est arrivé ce jour-là. OK, d'accord. Mais je, je viens de dire en wolof si le prophète était présent à Karbala quand les gens avaient décidé de tuer son petit-fils, qu'est-ce que le prophète allait faire? Il allait leur dire, ne tuez pas mon petit-fils, tuez-moi, C'est ça. C'est ça que le prophète allait dire. Et le prophète disait toujours Ali et moi et, et, et Hussein et moi et moi je suis Hussein. Donc ceux qui ont tué l'imam Hussein, ils ont tué le profet Maintenant, qui a tué Imam Hussein D'abord Abu Sufyan, qui a combattu le prophète pendant 23 ans. Après, il a eu un fils qui s'appelle Muawiyah, qui est le fils de Abu Sufyan et de Hind. Hind, c'est elle qui mangé le foie de Hamza. donc Muawiya c'est lui qui a martyrisé Imam Ali c'est lui qui a tué l'imam Ali c'est lui qui a al-Mujtaba et son fils Yazid il a gouverné trois ans la première année il a envoyé des milliers de solda à Médine il a dit tuer tous les hommes la deuxième année il a tué l'imam Hussein Et la troisième année, Yazid, il est mort pendant que son armée est en train de brûler la Kaaba. Voilà l'histoire. Maintenant, ce même Yazid et Moawiya, c'est eux qui nous ont envoyé l'islam chez nous. Quand on a coupé la tête de l'imam Hussein, on a amené ça à Yazid. Les personnes qui étaient assises à parmi eux, il y avait Okbat ibn al-Fihri. Celui-là, c'est celui que Moawiya a envoyé en Afrique avec 25 000 soldats. Ils sont venus à Barika, en Égypte. Après, ils sont venus à Kairawan, en Tunisie. Après, ils sont venus à, au Maroc, actuel Maroc. Donc, c'est eux nous ont amené l'islam. Mais quel islam ils ont amené L'islam de Abu Sufyan, de Muawiyah et de Yazid. Ce pas l'islam du prophète et de l'imam Ali et de Hussein. Moi, je vous parle de l'islam de l'imam Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad labbayka yaa Hussein wuy si nañu la jooy nañ la yaa Hussein jooy nañ la yaa Hussein jooy nañ la yaa Hussein waa Huseyna yaa Hussein labbayka yaa Hussein jooy nañ la yaa Hussein jooy nañ la yaa Hussein tey ma way Xuseyna mooy doomi Fatima di doomi Aliyun sëtu yoneen jàmbaari Karbala mooy baayu Abidin di baayu Sukayna ak Abdallah tey way Xuseyna mooy doomi Fatima di doomi Aliyun sëtu yoneen jàmbaari Karbala ma wax leen kan mooy Ousseyn moo demoon Karbala joxe bakkan déglu leen ma wax leen kan mooy Ousseyn moo demoon Karbala joxe bakkan kan mooy Karbala way na tey jafe diine maamam moo ko yóbbu ba mu yegee faagaagal ko mag waa këram ba mu yegg see Karbala laajte fii faal ñu ne ko Karbala mu xam luy xew mu ne taalibe yi fii la ñuy reye ñun toroxal leen fitu Ali fañ na tey ji xusay na ndax jom ji mu wone ca Karbala su Karbala metti na lool Cherif Ali nee nañu Karbala am na door waaye du mës a jeex ba aljanna jaale nañu la ci bis bi la dal ca Karbala dellu di yeesal suñu njëbal ci loxoy Cherif Ali Ousseynou ca Karbala dellu di yeesal suñu njëbal gi te ko Ali deret bi nga tuur fii ci Karbala mooy way di fa muhammad dere ji nga tuur fii mooy way di fasal diine muhammad ñun ñi la bëgg sopp la topp ñoo ngi si naqar bu dul jeex wallahi duñu tiit wallahi duñu daw yow yaay suñu njiit si yow la ñuy rey yaay sant ahmada di doomi fatima bëgg la dexe la yow haydara bëgg la dexe la yow haydara

اللهم صل على محمد وآل محمد